juróomi junni yu fekk juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaara ci ñoo xamante ni nag maanaam jamono ji ñoo tàggoo ak seen xel ñoo nekk ci hôpitaux yi yéen kaay gi ne ci atum ñi nga xam ne nag ñoo tàggoo ak seen xel loole nag lim boobee yokk na lool bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ne mooy docteur Babacar Gueye mi nga xam ne moo ko xamle ci cérémonie bi nga xam ne doon nañu ko def sa diwaanu Thiès journée ne moo am sa diwaanu Ziguinchor ci ñi nga xam ak Doudou Ka mi nga xam ne moo jiite aéroport AIBD yéen kaay gi nee na bëri na ñoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañu am nañu si ay blessé grave ci ñi nga xam ne ñooy militant Ousmane Sonko yi yéen kaay gi nee na mbir mi nag ni nga xam ne moom la demee mooy njiitul Pastef di Ousmane Sonko ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ne waa UNACOIS Ziguinchor ñoo ko convoqué woon ngir nag daal di koy déglu ci bëgg-bëggam ci mairie bu Ziguinchor comme a defee nag ñoo doon yuuxaloo ci bunt bi naan violeur violeur violeur violeur ci biir noonu ci la commerçant yi waaye ko ak daal di génn ngir nag bëgg a ñooñee nga xam ne ñooy militants yi Doudou Ka yi waaye nag ñooñu ñu daal di ëllëwlee militants yi Doudou Ka yi nag ñoom dañoo déterminé woon lool ngir nag yàq li nga xam ne maanaam mooy réunion bi ndax réunion bi fa ñu ko doon defee daal maanaam siège yu UNACOIS bi soriwul nag ak fi nga xam ne fa la Doudou Ka dëkk yéen a kaay na jàppante bu métte métti moo fu mujjee am ñi nga xamante ni ñooy cadre procès yu Ousmane yi ngir nag ñu génne woon Ousmane Sonko ko daal di koy rawale nag mbir mi jafe woon na lool ba nga xam ne ay coup de sommation la ñu daal di tiire ci kaw ngir nag mën a xàllal son Sonko yoon woo xam ne daal dana fa jaar li nga xam ne nag mooy otom bi dañu koo daal di saax-saaxe ndaw ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak duduka journal bi nee na ay arme blanche nag la ñu yoroon mbir mi nag dafa mel ni maanaam gars yi dañu ko waajuloo la ñi nga xamante ne nag ñooy takk der yi nee ma police ñoom na dañoo yéex a na nag am na benn militant passif boo xam ne maanaam dañu koo ñadd dañu ko bëggoon a rendi yéene kaay am na ci koo xam na nag loxoom dafa dam am na ci koo xam ne ab boppam ci boppam moo toj Abdoul Mbaye ci biir yéen a kaay gii di Vox Populi na nag song gi nga xamante ne daal moom la ñu song Ousmane Sonko loolee ci boppam kenn mënu koo nangoo acte imbécile noonu nag la ko Abdoul Mbaye tuddee daal di koy ñaanu bu baax a baax Birame Souleye Diop administrateur bu Pastef nee na nag mbir mi daal xam nga lan la ah. maanaam dóor fayu am na nag ay song yoo xamante ni maanaam dañu koy fayu ak ay yoo xam ne jamono ji dañ koy fayu moom nag Birame Souleye Diop nee na ci biir kenn koo xam ne maanaam ab ragal xel nekkul ci biir Pastef ndax moom biram daat nay wax ne ñi nga xam ne ñooy fa yàgg nañu leen a yàgg nañu leen a agressé li nga xam ne moo xewoon Kër Masar ñëpp teg nañ ci seen bët ndax am na militante Pastef boo xam ne dañu ko rey siège Pastef nañ ko fi yàqu ko saax-saaxee ko ñu porte plainte mbir mi mujjul fenn jamono ji nag dañuy riposé yéen a kaay gi di leen sëkko xëy di ñu xibaar naan bu ñu waxantee dëgg ñoom nag ñoo song ki nga xam ne maanaam mooy Ousmane Sonko ba gaañ ji nag ñi nga xam ne ñooy ay militant yéen a kaay gi ñu xëy fekk fekk fa Malick Gakou moom nag daal di koy ñaawlu bu baax a baax nee na lii agression la agression bàyyi ma yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na saal ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak ñoom nee na ñu ñoom militant Ousmane Sonko ñëw di leen di provoquer provocation yéen a kaay gi di réew mi Quotidien xëy wax ci lu jëm ci wàllum njàng meeg njàngale mi ubbi tey jàng tey loolu nag bu ko fi kenn xaar bu ko fi bi nag maanaam dina pëcc xool loola la na ci état bu Sénégal bi ni moo a te accord yi nga xam ne maanaam signé woon na ko ak jàngalekat yi amul lenn loo xam ne état bu na ko si yéen a gii de la témoin nee na ubbi tey gréw suba ndax loolee am la ko bokk na ci ñi nga xam ne ñooy jàngalekat yi ñoom nag nee nañu daal danañu jàmmarloo ak gouvernement Sénégal te sax ñoom nee nañu dafa mel ni daal ministre bi ñu dénk wàllum njàng mi nag ndax nag jàngalekat yi ñoom nee na li nga xam ne moom la ñuy sàkko maanaam accord yi nga xam ne signé woon nañ ko ci atum 2018 ñu daal di koy respecté ak nag seen rappel bi nga xam ne toll na ci mil milliards milliards yéen kaay gi di réew mi quotidien wax ci màggalug Touba gi ba mu jàllee ba léegi toll na ci fukki fan ak juróom waaye nag li ñu nemmeeku daal màggalug Touba gi bi mu jàllee coronavirus bi dafa wàññeeku lool lool lool ndax ñu baree bari dañoo jàppoon ne ginnaaw màggal gi coronavirus nag dafa yokk ci réew mi waaye nag li nga xam ne daal moom la ñu nemmee ko amul benn yoon boo xamante ni màggal ak Touba gi provoqué na yokkute Covid 19 yéen kaay gi du l'observateur xëy ci clinique Madeleine ak nag njombe gi nga xam ne maanaam moo fa xew yi nga xam ne moom la ñu génn moo bi directeur ba ak pédiatre ba akub infirmière teg nañu leen loxo ñoo ngi cab garde à vue yéen a kaay gii di Vox Populi nee na liggéeykat yi nga xam ne ñoo nekk seen lekk nee ma prestataires yi mer nañu lool grève de la faim jamono ji moom si la ñu nekk maanaam grève wu xiif la ñoom nag nee nañu daal ba ñu ñoo dee maanaam xiif ba dee moo leen gënal nag nekk ab prestataire Senelec ba dee yéen a kaay gi dee sat bàyyi mbir moomee wax ci équipe nationale bu Sénégal ak coupe d'Afrique bi nga xam ne maanaam moom la ñu dëgmal ki nga xam ne nag mooy Matar Ba dafa waxoon ne daal